amé won ci téwayu militant yu takku am détermination ci lañ doon dallo seen permanence bi fi ci Touba ci corniche ouest bi. Abdou Bali Mbacké di responsable ben bokk yaakaar ci commune bu Touba di ci ni nga xamné ni nii noonu la ñu élection législative yi ñu dëgmal ci fanweeri fan ak ben ci bi dañu jëm ci ay élections législatives président de la république am yaakaar ci ñun ñëpp. yaakaar ji yëmut ci ñi mu def ci liste nationale yaakaar ji yëmut ci ñi mu def ci liste départementale ci mbooleem ñu koy jàppale ci ñoom la am yaakaar ndax kenn ci ñun ku nekk ci liste bi sa jëmmi bopp mun a gañeel président Macky Sall ñun ñëpp ñooy maase ànd kenn ku nekk jàpp kenn ku nekk andi la nga man complété sa morom su boobaa victoire bi dana yomb te mi ngi suñu kanam. mom responsable politique bi tàllal ay loxoom boole militant yi waaye tamit ak sympathisant yi ngir ñu booloo doon benn ngir may victoire président Macky Sall ci élection yooyu la. amuñ ci loo xam ne moom la ñuy nattable ne au soir du 31 juillet incha allah dana am majorité à l' assemblée nationale. mais mu am majorité te gañewul Touba gañewul Mbacké day am lu des moo tax nag ñi nga xam ne ñoo nekk fii dans le département. mbaytin mi ngi sama ginnaaw pour le monde rural waa Mbàkke bari nañ fi waa Touba ñoo fi ëpp ñun yëpp ñu maasee takkatoo nekk benn def bloc xam ne cette année ci chance bi ñu am pour gagner les élections mosuñu ko am

mu seq ko ak nit ñoo xam ne dañuy def li tubaab di wax subversion am ci ñoo xam ne respecté wuñ les règles de la république am ci ñoo xam ne dañuy yee fitna ci réew mi am ci ñoo xam ne leen tax mooy jóg mooy bloqué doxinu réew mi loolu nag kenn ku nekk ñu dafa am responsabilité jóg faire face à toute position subversive pour le président de la république li nga a majorité pour que réew mi am stabilité parce qu'en face il n'y a rien du tout Nous, sommes sommes les Nous nañu warante nañ Nous sommes ki seen Nous ba nous wàll Nous dem sommes seen kenn sommes ñi nga sommes Nous sommes ci Nous

ay pexe ñoom ñi di benn bokk yaakaar ndax nañ ko di ay tournée waaye tamit ay porte à ba ci sax ay visite de proximité danañ ko ci amal lépp rek ngir jege askan wi xamal leen liggéey bi nga xam ne ni kii di njiiti mi amoon na ko ci dëkk bu sell bii di Touba. jëfi président ci département def ko jar du ma dës ci toutes les réalisations yi xam ne def na ko bi ci mujj rek mooy nab bi nga xam ne moo jaaxaloon nit ñi boo demee li jumaa ji lépp. ci armeel ya kenn ku ne ñun ci nga fa sa sa maam wala sa way kenn mu dafa dem di ziara ji fo dem ndox ma ngay bal liggey bi tam lañ ko ba feeg wer yu néew nabbi kenn du ci wax ci dëkk bi muy ay milliards yu bare bare bare bu soobe yalla alors bi jiitu ñew di gina suba dina and ak ñenn dem ñu visiter ko xol travaux yi nga xamne tam lañ ko ngir wan ko wa dëkk bi parce que président li fiy def kenn xamul nu mu toll loolu rek mooy li ci mujj li ci des lépp wax nañ ko waxati ko waxati ko jëfi président ci département bi def ko jar du ma dër ci toutes les réalisations yi nga xam ne def na ko bi ci mujj rek mooy ndam bi nga xam ne moo jaaxaloon nit ñi boo demee li wër jumaa ji lépp ca armeel ya kenn ku nekk ñun denc nga fa sa sa maam wala sa waajur kenn mënut faa dem di ji foo dem ndox maa ngay bal liggéey bi tàmbali nañ ko ba feeg yu néew nab bi kenn du ci wax ci dëkk bi muy ay milliards yu bare bare bare bu soobee yàlla engrais bi jiitu ñëw di ginnaaw suba dinaa ànd ak ñenn dem ñu visiter ko xool travaux yi nga xam ne tàmm nañ ko ngir wan ko waa dëkk bi. parce que président li fiy def kenn xamul mu toll loolu rek mooy li ci mujj li ci des lépp wax nañ ko waxati ko waxati ko. ku ñu war a seet ñu seet la ku ñu war a waxal ñu wax ak yow dem ci kilifa diine dem ci seen daara yi dem ci association yi dem ci regroupement socio professionnel yi wax ak ñëpp leeral leen bay bàyyi caravane yi ak ndaje yu xumb yi ak café yi def porte à porte dem ci nit ñi aw ci seen urmbal yi toog ci seen lal yi wax ak ñoom fii képp koo toog ci biir képp koo dugg gërëm toog ci ab lalam wax ak moom boo génnee parce que ay nit kese lañ ay nit ñu baax lañ kenn du la ci war waaye nag bu la dee seen nii rek loolu dafay des kon il faut ñu changer démarche. sëñ Abdou Bali di kàttam ci li nga xam ne ni mooy taxawaayam. di xam ne ne ay buntam lépp rek ngir may kii di njiitu réew mi victoire ci élection yi. kon ñu xam ne à partir d'aujourd'hui pré campagne bi commencé na man tous les après midi incha allah dinaa ñëw fi toog képp ku ma soxla naa la jox fi rendez-vous nga fekk ma. def. élection législative yi lu yées ñaari weer dong dox suñu diggante ak moom. coalition parti yi kenn ku ci nekk jug. ngir nag waajal ko. benn bokk ko yaakaar ne cette fois ci ñoom dañ def seen képp lay kàttan ngir gagner département bu Mbacké.